jërëjëf mbokk ñu topp ci loo xam ne jëm na ci wàllum wér-gu-yaram beneen yoon ak xob laurier laurier bi nga xamee ne dafa baax lool ci suñu wàllum wér-gu-yaram waaye tamit bëri ay njariñ lool ci suñu yaram ndax laurier nee nañ bokk na ci li nga xam si ne dafay tijji wërsëg jigéen ñi nga xam ne dañuy yéex a am jëkkër bu ñu jëlee liibaru laurier baxal ko ci ñett litre ndox di koy sangoo ne nañ tëju googu ñu nekk woon dañuy daal di gis euh, suñu borom mën na lañu ci dimbali ndax ndax laurier bokk na ci li nga xam si ne dafay ibbi wërsëg bu fekkee ne tamit sam xel dafay dafay faral di jaxasoo del jël li nga xam ne moo di loree di ko baxal tey di ci jël génn wàllu kaas neen tamit loolee ah, na koo saafara bu fekkee ne tamit eh, dangay faral eh, di ko baxale ko ñetti litre ndox eh, di koy sangoo lu bëri te ci naan tamit génn wàllu kaas tamit loolu tamit suñu borom mën na la cee ba ci ñi nga xam si ne tamit dañuy def luñ yaakaar mu tas wala tamit luñ dëgmal tamit mu wan leen ginnaaw loolu yow bokk na ci yi nga xam si ne garab goo xam si ne soriwuñu te suñu borom def na ci xeeti ndimbal yooyu yoo xam si ne ne mi ngi ci biir laurier bu fekkee ne tamit dangay faral di yor xale muy jooy lu bëree bëri dañ naa ne dee ko sangee ci xobi laurier ndax loolu lépp nekk na loo xam si ne suñ borom mënal cee dimbali euh, mu nekk nag euh, garab goo xam si ne nag gu am solo la mu nekk nag loo xam si ne nag lu bari njariñ la te am solo jërë ngeen jëf mbokk yi ñu topp ci 24actu point com loolu la leen indiloon suñu wàllum wér-gu-yaram di leen jox dig dajee ci beneen yoon